ay fannu néew rek des ci tabaski bi ba tax na tailleur yi nekk fii ci yaraax di wane seen bopp. tabaski bi moom yaa ma gën a xam coono yi ñoo ëpp kii quoi ñoo ngi ci kawam bu baax nag mi ngi metti mais ñoo ngi koy maintien daal di pare pour bégal client yi rek noonu am daal bégal client yi moo nu ko gënal daal. ñu ngi koy dund avec calme aussi di ci def li ñu war parce que clientèle bi ñoo ñu si bàyyi daal te ñoo ngi koy dund daal dans le calme aussi. ñooy moom. en fait fu mu ñëwee boo xool fin tabaski yu bari si la ñëwee am na ñoo xamante ne dañuy yéex a jot xaalis dañ naa la baal ma place bu kii bi kiiwee mën naa indi sama ñaw am ñoom na dañuy teel a indi mais ñuy mujjee indi ñoo lay xaw a xaw a kii tuuti quoi nga xaw a tàddeel say say say liggéey tuuti. tabaski gi nag ñu ngi sant yàlla bu baax waaw parce que client yaay ñëw ñu ngi fanaan xam nga dóor rafet ñu liggéeyee ba 5 6 heures départ fi 7 heures ku 11 heures ñu rafet. ñom nak ñu ngi ñuy xamal ci coupure courant yi. dañuy à chaque fois événement la courant bi di bañ buñ deug rek chaque instant buñ tolé événement courant yi mo def une heure de temps deux heures de temps. du ñëw. nag ren moom xaw naa tane quoi mën na ko xaw naa tane daana gën a metti parce que doon na tollu jamono yooyu moom wax dëgg ku piir da doon metti trop mais ren moom tane na tuuti. fête bu jot ak clients yi li ñuy faral di taamu tabaski bi nag tendance yi bëri nañ lool. instant bii moo ci ëpp ak borode quoi. oui mbasin riz bi ak borode bi quoi moom. tabaski bi moom ren moom jasneer mooy tendance bi fii moom jasneer lan ëpp luñ fiy dóor ak. Euh, brodé quoi nga ne ko brodé autrice yeeg yooyu ngeen si ay Getzner may super 100 coupe veste yi coupe traditionnelle xam nga ay Mazeris ay waaw même Mazeris yi su ma ñu gël tamit gars yi jël nañ ko bu baax si tabaski ji waaw boo Getzner bi tam yóbbul ko dara waaw góor ñi tamit day ñawlu Getzner Getzner simple xam nga lii dafa kalaas xam nga ay coupe veste xam ay double baat surtout double baat xale góor jël nañ ko trop. pour le moment Bajeris bàyyi fii Facebook bi Palman Getzner. ñoo gën a xew. mag ak ndaw jigéen ak góor bàyyiwuñ kenn waaye tamit ñaw yi yombul. xam nga lu baax moom ku ko bëgg dina xaw a cher fii moom wax ji wax ji mooy cher moom mënut a ñàkk daal boo bëggee qualité il faut nga def lu xaw a cher. bu fekkee client fixe moom du cher xanaa client moom ne client bu bees bu ñëwee moom mooy loolu. dañuy xaw a yokk prix bi tuuti quoi mais am na client am client fixe lañ am na ay dëkkandoo lañ xam nga. diapositu é quoi. ku ne tabaski ni sañse ba tax na téyeer yi nelawatuñu lépp rek ngir bégal seeni client